Marianne dañuy desande ak moom ni àjjuma bu jot waxtaane li nga xam ne ni moo di gëm-gëm tey dañuy ñëw ci turandoo ak mbóoti ci ne. Mm-hmm. <laughs> waaw ci turandoo la ñëw Pape. <laughs> moo tax mu xam naa ne su ma ko tuddee doom dinaa jur ku meere. <laughs> soo ma tuddee doom. kuris togg ndax <laughs> du mën togg. waaye Marianne boo wooyee waa ji la may woowee. <laughs> mais <laughs> Marianne boo ko tuddee doom. tuddee ko ku pata doom déedéet doom ju mën ak nappaate maa wax lii tey. waaw tey turandoo la indi tey di wax ne nag turandoo euh, comme li ñuy wax dañ naan euh, koo tuddee doom danga naw jikkoom. mais léegi euh, gis nañ ni que am na ñoo xamante ne obligation lay nekk ci ñoom. parce mm. njëkk yi parce que doomu bàyyi mm. euh, ñu ne turandoo nag dangay jël juróom-ñaari jikkoom mm-hmm. euh, léegi nag laata ñuy yaatal rek dañuy dem ñu xool élément bi ñu dellusiwaat ci plateau bi dañu daan tuddee nit euh, fekk dañuy gërëm jikkoom moo gis ni kii quand nit ku baax la royuwaay la ñu tuddee ko parce que dañuy wax ni turandoo dina roy ci turandoom ay plusieurs jikko daal am na ñi nga xam ne aussi quand dañ lay gis yaakaar ci yow dara ñu bëgg am atu nag tax ñu tuddee la pour gën la jege waa nga xam ni quand même yu ci bari dootoon ko mën a bañal parce que xëy na danga naan kii ma kii ba tuddee ma doom moom boo sollicité pour yenn kii il faut ma defal ko ko mais am xam ni quand même amitié comme ay ami d'enfance man mii nga gis ni am naa am pagaay tural allah te ñu ma tuddandoo yëpp ñi samay xarit lañ. ñi ay surtout ay xar rek ñoo ma tuddee waaw am naa presque une vingtaine ci ay turandoo. waa man de wax dëgg yàlla sama sañoo daal turu turu euh, islam comme ci ay julli la ñu jox ci ñu doon tur bi dañuy def ay ay di def ay Faatumata bintu yaa loolu vraiment loolu lu baax la. tur bi nag yonent bi dafa jàngaloon ni xayru asmaa yi. maa obida aw umida maanaam gën gi tur mu ni mooy yu tàmbalee abdullahi abdurahman wala yi nga xamante ni tàmbalee na ahmad muhammad yooyu mooy tur yi nga xamante ni ki war na ko tànnal ay doomam ci tur yu baax ak tur yoo xamante ni dëppoo nag lislaam ndax tur dafa am solo lool li muy def ci jeexital lu muy def ci jaam bi mm-hmm. ndax suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim dafay wax ni keroog yow ma xiyaam bu yàlla di rappel mu ne Mouhamad du koy àjjana mu ne képp tudd Mouhamad sa ñetaato mm-hmm. mais ndax yàlla du wàññi kenn kon laaj na daal nit ki daal nga wutal sa doom tur bu baax tur boo xam ne xelloo na ak lislaam dëppoo na ak lislaam loolu moo tax sax nit ki bu duggee ci lislaam bu yorul tur bu dëppoo ak lislaam ñu jox ko tur bu rafet ngir loolu mooy lislaam loolu mooy taaru lislaam sa mm-hmm. salaa sallam daan na ko def waaye Seydina Omar tam ci jamonoom benn xale ñëw na ci moom ni ko sama baay daf maa tooñ daf maa tooñ daf waaw daf ko tooñ ñetti yoon mu ne ko ndax lan mu ne ko tànnalu ma day baax euh, tànnalu ma tur bu baax ndax araab yi dañ daan tudde seeni doom ay tur yoo xamante ni dafa lu jaayale tur yu doy waar kenn mënu ko firi sax ci wolof ndax dafay xaw ñaaw tuuti mm-hmm. waaw euh, waaye tamit daf ci daan teg tamit euh, ni ko yaruma kon ñett yooyu yëpp àq la ci doom yow ko ndey ju baax nga jàngal ko waaye loolu àq la ci doomu euh, turandoo ak gëstu bi nga xamante ni Mariane Siva def na ko tase ak ay boroom xam-xam. Mm-hmm. waaw ñu ngi leen di jaajëfal bu baax euh, imam Babacar Seck ak euh, suñu mag ñooñu ñu njëkk taseel Pape Cheikh comme ni nga déggee mag mi lu mu lu mu ki njëkk wax lu mu wax nee na bu njëkkaan soo dee tuddee doom nit day fekk mu nekk koo xamante ne ay jikkoom doy na la. Mm-hmm. mais léegi fi ñu toll nii moo di da ngay Pape da ngay am ay doomu baay léegi ku jigéen ki mooy nekk par force première njëkkee. Mm-hmm. léegi nag soo amee doom bu jigéen yow xam nga jikkoom xamoo jikkoom mag ñi pour rafetal ñu ne la nga tuddee ko ko wala sa wujju nga njëkk am doom bu jigéen ñu ne la nga tuddee ko ko comme bu ko defee day indi jàmm ci li nga xamante ne mm-hmm. moo di kër gi léegi nag euh, turandoo euh, des fois nga gis ku jigéen koo xam ni njëkkeem day am tur bu tur boo xam ni tur bi rafetul ñu tuddee ko ko mu war a woowee xale bi tur boobu mais comme njëkke bi ñoom ñaar jubóowuñu mu wutal ko surnom genre affaire yooyu pour bañ rek di ko ko woowee. parce que neexu ko wala mu am. na muy waxee am na tur yoo tam yoo xam boo ko tuddee sa doom buñ màggee ñu ñaawal ko. Mhm. waaw. ay yu ñaaw rek non pas pas sax mooy ay tur yu ñaaw yoo xamante rek dañ koy faral di gis. Mhm. bugguma wax mu mel ni da am. na ñoo xamante loolu dal na leen ñu tuddee seen doom ay tur yoo xamante euh, malgré ñoom la neexu leen. Mhm. léegi nag ñu ne euh, turandoo da ngay jël juróom-ñaari jikkoom am na ñu ne lu am la am na ñu ne lu amul la euh, li tax munuñu si wax ni que lu am la exactement moo ni que da ngay gis dañuy tuddee fii ay tur kilifa xale ba doy waar hmm. kiñ ko tuddee ku baax la hmm. mais léegi nag ñu ne la li tax ñuy ñuy def lool moo di euh, tur am na nu ñu lay tuddee yow boo màggee di nga commencé di jël conscience xam ni que yow surtout mm. kii war naa war naa rus ñu naan ma diw mii kat nii la tudd ba pare di dugg ci yenn mm. affaires yi mais tur jotewul dara ak nit ki euh, dem donc da fi gis ñoo xamante ne tur bi ñuy am dañuy turu sëriñ ñu ñuy nekk si boîte de yi wala ñu kii mais dañ la koy wax pour nga mën a roy si kooku ay boo màggee ba deseeg sa xel voilà tuddee la Maodo di nga xam ne ki ñu la tuddee kat ah fais très attention nga nga moytu mais également ñu koy def ngir ñi nga xam ni ñooy sa entourage ba ñu tudd sa tur di la saaga wala yenn yi parce que dañuy wax ni nit suñu la tuddee kilifa da ngay gis sax ñenn nit ñoo xam ne dañ lay tuddee kilifa jullit bu mag ñu wut benn surno di la ko wooye parce que ñu tudd sa tur di si teg ay saaga dañ koy mag ñi dañ ko daan moytuloo nit boo tuddee sa doom sa sëriñ ñu ne la kat moytandiku di ko wax yenn yi bu ko defee yow xale bi lu mu la def lu mu metti metti da koy naxtaan doo ko bëgg saaga wala doo ko bëgg def dara mais tur li tax mu am solo moo di euh, depuis temps yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan ñëw gis ay jigéen ñu am yenn tur yi ñaaw yi mu tuddee leen ay Jamila changé seen tur yi. Mhm. ba pare tur ñu ne dafay am njeexital ci nit. Mhm. parce que dañuy faral di gis ni ñi ñuy tuddee Aboubacar dañu nekk ay nit yoo xam ne dañu am fit. Mhm. loolu du ñu dellu ginnaaw benn yoon. ñu ne kon <laughs> du ñu dellu ginnaaw ñu ne kii kat am na lu mu jël ci li nga xamante ne moo di turandoo. mais li taxoon ñu lay tuddee yenn turi par exemple suñu tuddee Victoire. nga dugg ci ci salle bi ne ana Victoire. ñu ne la nekku fi walla dem na boo xefee ñu ne la kon yéen ñi nga xam ne yéen a ne dem na boo leen xefee di ngeen ñàkk chance. leen am ndam ci li ngeen di def wala yooyu mag ñi di la moytuloo yenn tur yi mhm. ba pare dafa amoon euh, Mouhamadul Hahadi benn doomu Baye Niass la boo xamante ne dañu ñëwoon di ko ñaan lu loo ci benn benn malade feebar bi sonal ko lu yàgg opération bi suñ ko waree def rek am ay gàllankoor yoo xamante ne la siy am ñu sonn si ñëw nag ne ko sëñ bi dañu bëggoon nga ñaanal waa ji mu ne la nu mu tudd ñu ne ko jafe mu ne loolu moo tax ay mbiram jafe kon tur dafay am loo xamante ne dañ ko daan def te yonent bi su daan def yenn affaires yi sallallahu alayhi wa sallam day laajte kenn ne kii nu mu tudd ndax bis dafa indi gàttam euh, mu ne nañ ko rattal gàtt bi soow solo voilà léegi benn waay jug ne euh, moom ñun yonent bi ne ko noo tudd mu ne ko euh, man maa ngi tudd euh, murra ñu ne murra mooy lu wex yonent bi ne ko toogal keneen jug ñu laaj ko nan nga tudd mu ne xarb turam geer la doon signifié mhm. ñuy def noonu ainsi de suite ba kenn jug mu ne ko noo tudd mu ne yahish ñu ne yahish mooy le vivant kooku la mujjee jox mu rattal ko li nga xamante ne moo di soowam pour wan la ne tur dafay am ala kulli xaal li nga xamante ne moom moom moom lay def voilà tur yi dafa am mhm. définition et mhm. puis dafay am loo xamante ne daf la koy dafay dafay am lu muy nekk si yow parce que moment maa ngi koy tooñ ma ne ko yow sa turandoo est-ce que mënoon na reetaan mu ne ma waaw sama turandoo dafa ko ah, doon laaj waaw ma ne ko yow sa turandoo est-ce que dafa mënoon reetaan affaire yooyu mu ne ma nekkoon nit koo xamante ne ku yéwén la affaire yooyu mm. donc mun naa ne man jël naa turandoom te loolu day am ñu bëri ñu muy daal mais man par exemple amoon naa sama benn maam boo xam ne dafa ma doon wax ne yow dañoo waroon bàyyi ba nga màgg ba ñu xam sa jukko ñu war la ñu doog la tuddee parce que yow sa turandoo dafa daloon du wax affaire yooyu te man dama bëri wax mm-hmm. sopp affaire yooyu voilà donc dañ ma naan chaque fois jëloo turandoo jëloo sa sa jikko turandoo parce que moom daanul wax affaire yooyu donc affaire yi daal c'est partagé ñii dañ naan jël na ay jikko ñii gëm-gëm oustaz mooy gëm-gëm xam olof moo mooy gëm-gëm turandoo dina jël ci turandoo juróom-ñaari jikko mais mag ñi wax nañ sëriñ Babacar Si dana wax ne turandoo day jël ci ñaar fukki jikko prof dana juróom-ñaar mais sëriñ Babacar dana juróom-ñaar fukki jikko mm-hmm. la turandoo turandoo di jël ci turandoo. juróom-ñaar fukk juróom-ñaar fukk. tey sa turandoo mënoon naa nekk di ko lewet yow nga yow yow lewetoo. mais mais xëy na lewetam ci kaw nga jëlul mais biiram. jël nga ko il faut que turandoo nga am loo jël ci moom mm-hmm. turandoo turandoo dafa dafa fort mm-hmm. moo tax Sidina Muhammad ne daal leen tànnal leen seen doom mm-hmm. tur rafet mais tànnal leen seen doom tuddee leen ñu baax borom ci ko yu rafet waaw ndax ñi tuddee seen seen doom ba pare rus leen c'est-à-dire. comme tey nga jël sa doom tuddee ko sa papa sa wayjur bu góor wala sa wayjur bu jigéen. pare rus ko. Mm. rus sa doom bi. waaw ndax tur bi da ko mën nga ba pare rus rus sa doom. rus sa doom gàtte ko mën nga ko sax xëy gàtte ko ba mu ëpp. Mm-hmm. ndax bi. waaw waaw ndax man gis naa ko. maanaam bañ a éduqué daal maanaam éducation bi. du importance nga xam ne ci ci kër gi ci kër gi ah. dina am kenn koo xamante toujours day am cas particulier ndax tur bi. ndax papa ji wala yaay ji da koy rusé rusé yi leen mais ñeneen ñi dañ leen boole ci maas bi ndeysaan mbugal léegi yëpp ñoo koy jël i ah, waaw mooy mooy xam nga ñi ñu tuddee Seydina Mouhamed moom sallallahu ah, alayhi wa sallam ñi ñu tuddee Seydina Mouhamed moom xam nga ni loolu mhm. kooku foo jaar jox ko cër doom bi nga tuddee yonent bi mhm. mbaa nga tuddee ko sa wayjur mhm. mbaa nga tuddee ko sa sëriñ mbaa nga tuddee ko sa xarit boo xamul boo xam ni tey bu dee jotoon nga ànd ak moom dee foo waaw foo jaar jox ko cër alaaj Alfi li nga wax dëgg la mais sa xarit bi dafa dafa fonkoon tur yonent bi dafa fonk contour wu rafet loolu il faut ñu xamal xamal ko mm-hmm. sénégalais yi mm-hmm. cest à euh, munoo munoo nekk ak ndey màlle mi fonk ko rek mu jaral la nga tuddee ko sa doom bu màggee ñu koy kokk leeg màlle màlle màlle gudul jeex mm-hmm. yonent bi dafa fonkoon tur wu rafet tur bu rafet waa nga war a xool jarul sa xarit lu mu nekk sa xarit sa xarit te turam rafetul ah nee ko Ablaye kat man bëggoon naa laa tuddee ah waaye maa ngi jéggalu kat ah nga baal waaw waaw du mais dafa am euh, dafa am aussi am aussi lenn loo xamante ni léegi dafa am ci suñu société bi par exemple léegi xam nga échographie bi ak fu mu toll euh, maanaam euh, euh, mbirum technologie yeeg yooyu. Mm-hmm. yow boo amee yenn mois de grossesse yi di nga xam ban doom moo nekk ci sa biir. Mm-hmm. voilà sexe bi léegi dafa am ñoo xamante ni dañuy pàcc ay tur maanaam tey ma am doomu jigéen. ma ne par exemple Mayram Alfi. ah comme tukul voilà voilà ni ñuy joxe non pas ñaari tur léegi dañuy patché tur yi c'est-à-dire léegi dafa nekk loo xamante ni léegi tendance la léegi au lieu nga tuddee rek Mado mais da ngay jël madoo ak Marianne patché seen tur yi tuddee ko sa doom. Mm-hmm. tuddee par exemple benn nit ñaari nit voilà jamono bu naan la cee xew aussi c'est ça wala sa yaayu jëkkër voilà nga patché ko mm-hmm. voilà non en fait dañuy def par exemple euh, sa tur sa sa turu sa borom kër yaayam. voilà ak yow sa yaay am naa am naa sama benn xarit boo xamante ni euh, yaayam la tuddee. Mhm. Binta ak Viviane. sa mhm. c'est-à-dire Vasso Viviane. Binta Seck. loolu li ko waral mooy jigéen ñi juratul. ñetti ñëpp dañu am euh, dañu am jigéen ñi ñoo juratul. c'est ça xam nga boo naan ñetti doom laay am ci sama sëy bii mhm. wala ñaari doom su ma ko amee doon na sëkk. Ah? nga waxtaan ak sa jëkkër mu mu d'accord ci ak yow. Mm-hmm. ngeen am doom bu jigéen xale ay tubaab la ñu léegi nga ne ko léegi papa comme que comme que du jur lu bari. Eh. sama doom bii nañ tuddee euh, joxal sa turu yaay ak sa sama turu loolu mooy lan. mais Oustaz du ko tuddee benn tur mu nga amaat beneen doom mu tuddee lu mu gàtt gàtt jigéen war na am fukki doom. wala mm. juróom-ñeent lu ndaw ndaw ndaw lu mu ndaw war nga am fukki doom mbaa juróom-ñetti doom. mais comme ñaar doom quand même ah. non en fait des fois ñaar doom tëj sa buntu bi njurukaay. dëgg la des fois du nekk si coobare Euh, nit ki. des fois médecin yi. ñooy xool nit ki su amee par exemple euh, trois césariennes. oui césariennes ñoo lay forcer ne la. Marianne loolu bariwul loolu bariwul. césarienne xam nga xam nga euh, d'accord xam nga tey docteur mën na laa wax ni boo juraatee. lu la dal yàlla. bu boobaa pexe amul bu boobaa pexe amul. mais ñi nga xam ni seen. ak dañu ni ñaari doom ca laay am yam ca ñetti doom ca la feebaroo wir nga ping dara daru la dara daru la nga ne ñetti doom ci laa yem te xam te kat te wóorul sax ni sa juróom-ñetteelu doom moo la war a yor. am na ku am na ku gàttal njuróom. am nju gàttal sa jur. oustaz waaw baax juróomeelu doom war laa yor. ah Marianne bokk la ki nga xam ni. dafa dem ñu césarienne ko opéré ko. docteur bi ne la. nga defaat ko deuxième fois mm-hmm. mun la troisième fois bi nag mën na laa indi loraange mm-hmm. yàlla ne laa yukallifu laahu nafsan illaa wusaha mm-hmm. teguma bakkan lu dul mu attan te loo xam ne boo ko defaatee da xaru boo deewee yaa rey sa bopp kon foofa mën nga arrêté sa njurukaay parce que loraange la lay indil te l'islam bëggul loolu yàlla bëggul loolu mais ki nga xam dafa wér péng yemale ne ñaari doom rek lay am maa ñetti doom ah. mooy pat moo tax jigéen warul laaj tur ah, kër loolu leer na si parce que ci diine mooy xool ku ko neex borom kër mooy xool ku ko neex. mais ñaan nag bàyyi leen di laaj bàyyi leen ah Oustaz ñaan nag ah, ah, nga ñaan ñu may la. mais déedéet xam nga mais xam nga warul ñaan xam nga affaire bi xam nga man maa bëgg lu naturel laaj war ngaa góorgóorlu gis nga fi war ngaa góorgóorlu am ak sa borom kër complice am ak moom mbaax goo xam ne diggante sa borom kër ak say way jur mm-hmm. ba sa borom kër ci boppam moo ko moom nga bañ ko koo ñaan mu ni mm-hmm. tëf yaay dëgg la mais xam nga bu njëkk. di nga loolu boobu surprise moo boobu surprise. moo dàq que ni ko évaillé même tur bi. ci biir bi la ñuy lijjantee tur yi. mais ba pare oustaz tur bu njëkkoon euh, temps wu arabe yi wala yooyu tur dañ koy askanale wayjuru sa wayjuru góor maanaam papa ji lañ ko daan askanal. mais soo seetloo fii Sénégal suñu waxee tur. su su dëgg rek neexee yàlla mooy di yaay ji lañ koy askanale parce que soo xoolee dañ naan sëñ Mbàkke soxna loo suñ Cheikh Mati lay. oui seen seen côté yaay par exemple. ay dàkkantal la waaw mën nga. pour ràññee la waaw pour ràññee la moom diw mais pour wan la ne la. Euh, loolu tamit da cee <laughs> mais da cee am solo ndax ndax mën ngaa wax ak sa borom kër par exemple ne ko euh, sama yaay lii wala sama papa lii bëgg naa bu ma soñoon ñuy dund ma tuddee leen doom. Mm-hmm. wala juste nga gis avant accouchement bi sa yaay gaañu wala sa papa gaañu. kooku mën na même bu ko bëggoon tuddee sëriñam nga ñaan ko njëkk rek. wala moom si xelam mu ne naa la saa sox ci complicité rek ba mu bettee la mhm. ak sa mbokk wala sa jege ñaar en tout li gën a am solo daal mooy mooy tudd tur yu rafet mais parce que dañu ne yonent bi sallallahu daf ne ay Ahmed ay Abdallah Abdou Karim mm-hmm. euh, jaamu nangam mais ñuy éviter par exemple eh, parce que ah, Karim rek turu yàlla la moo tax ñuy éviter ku nekk Karim ku tudd Karim waaw parce que Karim moom mooy yàlla donc da ngay wax jaamu yàlla muy Abdou Karim da ngay éviter di ko wax Karim parce que soo koy wax Karim day mel ni comme si yow borom jaam yi ngay wax xanaa yow balaa ñuy balaa ñuy yegg ci tur yooyu ñu bàyyi euh, par exemple nga nga tuddee nit yonent bi di ko wooye momo waaw mais xam nga momo bi nga koy wax pour lan la parce que da lay leer na yow li ngay teg si momo bi du jàmm safaan lay nekk da ko bëgg saaga wala am na loo ko bëgg wax loo xamante ne boo waxee Mouhamed yow après yow sa bopp yaay toog di di commencé di tiit wala dara moo tax mu ne mu ne euh, voilà moo tax xadis Abu Tarda ñëw nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne yéen nit ñi yow mal xiyaam dees na leen di woowee ci seen tur ak seen tuuru baay yi donc ni ngeen di tuddee seen doomi yi na tuur bi rafet ah. comme Alfred mu sirno mu sirno sirno baaxul. Eh, man si tur yi laay ñëwaat rek. parce que euh, si bu ñu xoolee ñi nga xamante ne dañ leen tuddee yaradala. Mhm. tur yi ñu leen di jox d'habitude dafay nekk ay mhm. tur yoo xam ne yu xaw a euh, yu xaw a ñaaw la parce que di nga ci dégg comme exemple tey boo demee Kolda yaradal di nga dégg ñu leen ay dee nit koo xam ne dee lay tudd wala ku tudd lapin donc ñooñu est-ce que mën nga leen tuddee sa doom parce que loolu tamit dafay. xaw a question de aada aada aada boo seetloo ñu bëri ay tey Saalum par exemple ñi ñi nga xamante ne euh, dañoo tudd ay biram boo seetloo bu ñu leen di kiiwaat Ibrahima la ñuy tudd rek. Oh mais après nit ci soppi mm-hmm. waaw ah, ah, lañ ko dagg comme biram mooy Birahim. Mm-hmm. Birahim mooy Ibrahim. Mm-hmm. ah mooy mooy Ibrahim euh, bari na ci ñoo xam dañoo dagg seen tur moo tax waaye nga tuddee nit Seydina Muhammad. naan ko Momo wala naan ko Momo wala naan ko Moha wala Moha ah. Mouhamed Bousseyri dani rafaa googu ñu def turu Mouhamed moo bindee Mouhamed mu googu. mu ni yonent bi rek moo ko yeyoo. Mm-hmm. nga nga koo keneen ko tuddee nga ne ko nga ne ko Muhammad isnu diita bi rafi misla mufradul alam moom isnu diita ba woyof la yow rasulullah bi rafi ci rafaa mooy mooy lonk googu yëkkati <laughs> waaw bi rafi ci rafaa ci yëkkati ko misla alam kem mufradul alam comme li doon wax tamit am na ñoo xamante ne dañ leen di tuddee yaxya mm-hmm. comme man sama benn papa boo xamante ne tonton Yaya mm-hmm. parce dafa doon waral saa su ne bu ñu amoon doom rek dañuy dellu donc après ñu tuddee ko yaxya mais defe naa am na lu muy firnde ci alxuraan ah, ah. mooy mooy lu mooy dund mooy mais na prophète bu tudd yaxya yut yàlla yaxya tur la aussi yaxya ah oui et c'est comme ça qu'il est resté mais tamit ci biir yaradal bi am na ay tur yoo ñu lay jox yoo xam ne turu jullit la comme man exemple bi ma demee fee tur bi ma jox hmm. alamuta mooy nañu jàpp ci yàlla waaw la ko joxee mu tam kii dafa eh, dem naa <laughs> <laughs> bétenti lañ ma tuddee woon lakkal fan yi ak reportage boo defoon ci ndox moo xamante ni kuy naan sàngara boo ko naanee bàyyi ko. kooku daal lakkal na ma rek ak ndox moomu fan lay dem mu naan mu ngi <laughs> nañ ma ci. waaye. mais ala eh, ndox mi waaye. <laughs> seetaatal horaire bi mbesel dina joxe numéro téléphone xam nga li xam nga nit ñi dafa am loo xam ne tamit comprendre numéro mais teen bi mu ngi Jemberin boo demee ba Jemberin boo leen ne teen Cheikh Omar Foutiyou Tall d'accord di nga fa dem julli ñaari rakk voilà wala jigéen la doom ji dafa dugg ci yooyu naka sudul noonu mais daf may sonal ak wax ma rek ngir yàlla bu sore na dem ji Pa Saliou ànd fu mu ne mu ngi Thiès booy tux bëgg a bàyyi mbaa naan sàngara. waaw Saliou mu ngi mu ngi Thiès waaw booy dem muy deñ waaw lépp ngay bàyyi. wala jigéen buy sëy amul doom. waaw dana dana def Paa mhm. <laughs> ma indi woon ci ndox mi yëpp jeex na. allah bàyyi naa ko ba mu jeex. macha allah kon góor gu baax bu tedd gu googu ma nga Thiès. Euh, alaaj Saliou Anne. Mhm. Euh, ku wàcc garage su boo ko laajtee rek. amaana ñu yóbbu la ba këram garage su la tudd Ah, bàyyi leen ma waxumaay waxu dof de. Ah, déedéet boo wàccee garage Dakar ci Thiès boo demee ba la Lamy Euh, boo laajtee alaaji euh, Saliou aan ñu yóbbu la fa parce que jigéen ju baax la aussi daf ma sonal ndeysaan ak euh, ngir bëgg a jàppale doomam boobu donc reportage a tox dina ko bàyyi bari na ma fa yebal parce que dama woo doom ji di ko yedd naa mooy gaay sama <laughs> ndox mii nga bàyyi li def <laughs> waaw ku indi sujet sax ba ñu wax ci yow kon ñu ngi a indi loolu waaw di wax ni Pape su fekkee da bëgg daal fii def fii ay wàllu tuddee sa doom tur mhm. euh, yaakaar naa ne euh, mag ñi ñooy meilleur exemple mhm. parce que ëttug seen ëttu kër boo dem euh, di nga fa fekk ay tur yu rafet bu Sëriñ Tuubaa rek exemple la Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikh Mouhamadou Euh, Amin seen tur yi ñoom ñëpp euh, Mouhamadul Mourtada Assalihu mm-hmm. euh, nga dem ci Maolana Cheikh Ibrahima jabootam Mouhamadul Amin ñoom ñëpp daal mag ñi seen tur yi ay ay tur yu seel lañ leen tuddee donc kon te fii ñun ñoom lañu mm-hmm. su fekkee da nga leen di roy da nga leen di roy ci man di damaa égaliser ak sama baay daf maa tuddee baay mu tuddee ko sama doom mm-hmm. égalisation ba ñu nee tuuf tuuf ne doom ji fayee nañ ko sama baay dama ko ne dama laa fay sa bor rek fayu naa de noo ma gisee jooy turandoo dafa fort en keroog sama papa dafa jooy ñëwee ma ne ko damaa fayu rek mm. dóor oh. fayu la rek damaa tuddee sa baay man tamit ma tuddee la sama doom dama oh, je doom boo ko bëggee euh, da koy tuddee ki sa xol di ko ko xoolee en fait c'est très day tax nga yërëm sa doom bu weesoo euh, njur gi nga ko xolu njureel bi nga xamante ni moo ci am oustaz nag su ma ko naree tuddee doom xam naa xale bi ma kumba jàll lay tudd <laughs> jërëjëf <laughs> jërëjëf Marianne tase naa ak ku tudd cappateel. cappateel wuy mu ne ma ci alpulaar yi waaw alpulaar yi eh. cappateel la tudd. wala bojjel waaye cappateel la ma neex. mu ngi noonu nag bojjel ko takk xarit. cappateel day dikkee laa koy woowee léegi allo cappateel jël naa. aseet kon wurel cappateel waaw ah, mais elle comme caba comme li ci li ñuy wax caba mhm. ñoom seen dëkk cappateel la ñuy wax. cappateel am na am na cooyel ak boo leen ak boo leel ak boo jël. Mariam Siva Mariam Siva sama waa <laughs> mu ngoog replay bi mën ngeen ko amaat. ci youtube bi slash tfm et puis euh, bu weesoo suñu page facebook bi ngeen ñuy seetaanee gëm-gëm itam am na euh, page facebook mën ngeen ñu proposer ay sujet comme ça ñu gëstu ci euh, bu ko defee àjjuma bu jot Marianne Siva indi ko ci nu mu gën a yaatoo ñu partage ko ak yéen ñi nga xamante ni yéen ay xëy di àndandoo ak ñun fajar gu jot ci télévision Futur Média pàcc bu mujj